wala ngeen woote ci seen succursale ci lu 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24 رجال يحتذى به في المنطقة فنصر الإسلام ونصره المسلمين وأدى الأمانة فجزاه الله جزاه الله عنا خيرا و وكما نثمن الدور الذي تلعبه يلعبه تلعبه أسرته من بعد ممثلة في أبنائه وخلفائه وتلك المسؤولية التي القوية التي حاولوا النهوض بها رغم رغم الصعاب المتعددة ورغم ثقلها فجزاكم الله خيرا على ما تقدموه للأمة الإسلامية من حولكم وعلى ما تلك الجهود التي الخالدة التي بذلتموها في هذه المنطقة من العالم فجزاكم الله خيرا ولن أطيل عليكم جئنا لنشيد ونخلد ونتقاسم معكم هذه المناسبة التي هي مدعاة للتعبير والتفكير في ماض مجيد جمعنا لقد كانت إقامة الشيخ الخديم بين ظهرانينا كما قال الشيخ بابا وللشيخ سيديا نعمة من نعم الله لقد أنعم الله بك علينا كما قال له ذات مرة وأعتقد أنكم كذلك أنتم نعم ستظلون نعمة تظلنا إن شاء الله في هذا في في السنغال وفي جميع بلدان المجاورة إن شاء الله وذلك بإشعاعكم وحكمتكم ونبلكم وترفعكم وخدمتكم لدينكم وجزاكم الله عنا خيرا وشكرا délégation bi Sidi Mouhamed xatari nekk euh, ki yor wàllu consul ci ambassade bi ba tey nekk chargé des affaires bi qaa'im bil amal Sidi Mouhamed Aminou nekk ki jiite markaz centre culturel bu Mauritanie sunu mbokk me Mouhamed Foukounache bokk ci protocole président ba ñëw ndokkeel la ànd ak yow ci loo nekk nee na comme lim la waxoon rek bi bi yàlla dogalee ngay doog nekk ci liggéey bu am maanaam bi mooy fas nañ yéen a ànd ak yow ca danga ko xam lu mu gën a yàgg nga tegaloon leen ci ne gëm naa ko de ndax yéen laa njëkk gis ci ci ay gan booba booba ministère bi yoral islam bi la fi yónni woon keneen la السيد محمد للشيخ القزواني وهو سرير بيت علم وورع ما يليه من ما يليه من أهمية لهذه العلاقات الوطيدة التي جمعت بين علمائنا وفقهائنا وهذه الأسرة الكريمة في السنغال إن اهتمامه بتوطيد هذه العلاقة الروحية بين شعبينا سيكون إن شاء الله حصنا حصينا في وجه كل محاولات التفرقة والتشويش على مسيرتنا إن شاء الله وأعتقد أن أخوه فخامة الرئيس مكي سال له مواقفه وله قناعته في هذا المجال مع أخيه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد القزواني وأشكركم الكل قصارى جدي من أجل أن تظل هذه العلاقات على مسار طبيعي كما بناها الأوائل وأن الدولة أيضا ضمن كل التي تقوم به من أشياء تجاه هذه الأسرة الكريمة من ضمنها أيضا بقاء سفير مثل سعادة السفير إنه شخص ينبغي أن يثمن ما يقوم به ورسل تحياته الخاصة والخالصة إلى فضيلة الشيخ وأطلب له الدعاء من فضيلة الشيخ والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الوفد الكريم الوفد طوبى السلام عليكم ورحمة الله فضيلة شيخنا wa maulana cheikh mahmadul muntaqa euh, yusallimu alaykum wa min xilalikum ila man arsalakum wa min almaaruf bi anna arrasula bi qadri almursal wa yaqulu lakum an yatlubu minkum shaxsiyan wa bismihi ka xaadim wa ka qaa'id wa sama nafsahu bi xaadimi rasul euh, li hadihi alxadra almubaraka الطريقة المريدية الصوفية السنية باسمه شخصيا وباسم جميع من تعلق بهذه الأسرة المباركة أن توجهه له تحاياه وتشكراته إلى فخامة الرئيس سيد محمد الشيخ الغسواني ويقول لكم أنه يؤكد لكم يدرك جيدا موقف فخامة الرئيس سيد محمد الشيخ الغزواني مع علماء المسلمين حيث كانوا wa maa ahli Sénégal lakin laa yaxfa anna li Touba nasib al asad yaqifu maa Touba yaqifu maahu fi l afrah ka qudumikum al mubarak wa yaqifu maahu taban kazalika idan fi gayri zalika fa huwa axuhu fa huwa kama qaala shaair inna axaaka alxaqa man yasaa maak wa man yadurru nafsahu li yajmaak wa man iza raybu zamani sadaak shattata fika shamlahu li yajmaak fa huwa yukinnu lahu almahabba wa taqdir wa insha allahu taala sawfa yabqa daaciman lahu wa yadcu lahu insha allahu taala bima fihi maslahatu shacbu almuritani wa shaqiqihi sénégal bi idnillahi taala wa an yakuna xayra xalafin li xayri salaf wa an yaktuba allah fi wilayatihi almubaraka alyumn walbaraka walistiqrar walisdihar wa kulli man yatacaawanu maahu min alchaab wa min alxukuma wa gayru wa gayru wa gayru ala kulli haal yashkuruhu gaayatan wa yuthamminu xutaakum jayidan laa shakka annana nahnu nuxayi haaza alyawm shukri lillahi taala taxlidan li zikra gaybati cheikhina alxadim ila manfaahu bi amrin minhu taban liannahu amara jamia almuslimin aw taban atbaahu wa ahbaabahu an yusharikuhu fi haazihi alafraah wa laa shakka anna cheikh alxalifa يخلده ويخلده في هذه الظرف الاستثنائي نسأل الله تعالى السلامة والعافية من جميع الأوبئة ومن الأمراض وال... ومشاركتكم له في هذا الظرف الاستثنائي رسالة واضحة جدا أنتم منا ونحن منكم فباختصار شديد ما شاء الله ما شاء الله على كل حال فباختصار شديد شيخ يشكركم ويطلب من الله سبحانه وتعالى لكم حسن الإقامة إن شاء الله تعالى وعودة ميمونة إن شاء الله وسترجعون مرات تلو أخرى وتبلغ تشكراته وتحاياه إلى الشعب الموريتاني خاصة وإلى قائده الحكيم الرشيد السيد محمد الشيخ الغسواني وإن شاء الله تعالى قولوا له أنه في همة الشيخ لن ينساه أبدا بإذن الله تعالى وقل له ليطب ليقر عينا وليطب نفسا لن يرى بإذن الله تعالى ما يكره إن شاء الله تعالى سوف تبقى قال سيذكر دائما معه إن شاء الله سوف يبقى إن شاء الله عهده عهدا ميمونا مباركا مزدهرا بإذن الله تعالى وأنتم أيضا بوصفكم كان رسول له إن شاء الله تعالى ستجدون نصيبكم من ذلك وسائر المسلمين وشكرا علاقة الشيخ بأهل موريتانيا كرامة نفس العلاقة كرامة كرامة ظاهرة وباطنة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

wala ngeen woote ci seen succursale ci lu 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24